On espère un jour le souhait que ce combat également soit euh, un combat où il n'y aura pas de mort, soit euh, un combat où il y aura contestation. Il y a Bombardier aussi qui rentre voilà, dans l'enceinte. qui arrive. Bombardier qui arrive. Voilà, voilà Bombardier. 15 victoires, 7 défaites. 7 défaites. Et Balagaï, on le rappelle, Balagaï 2, on le rappelle. Ouais. Euh, en 21 combats, il a 19 victoires. Il a 2 défaites. Et 2 défaites. Le plus grand événement de la saison. Un choc au sommet. Pakala Forza man dama koy tuddee la revanche du siècle. lu tax. dañu tolloo ci ay jamono ñoom ñaar ñu nekk ay champion de lutte traditionnelle. Mm-hmm. ñu bëri combat bu rëy à Thiès. Mm-hmm. mu nekkoon ci côté frappe bi nekkoon avantage Forza. Mm-hmm. ku nekk gis na ne keroog Pakala jéggi na saako yu autant de fois. ndax souffrance. ñu mal mal mëne ko jekk ko. est-ce que pare ngeen mu wàññeeku daal di indi li nga xamante ne mooy bëreen moo tax ñu ne bëre dóor waaye li ci ëpp rek bëre dóor bu ñu koy partagé dafa am benn pour centage de gain boo xamante ne li ci ëpp rek ci bëre bi lay jógee te dañ tam ñu ne gàccee dóor gàccee daan faj na ko di nga jàpp ba dóor ko mu bëgg a dee bu la daanee si jël bu ñàkk fayda sax moo jël tam la yóbbu ko sa dóore doo amata njariñ loolu moo dal Forza ci digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Pakala Pakala aussi mu lâchewul benn yoon ndax mbër des fois ñu jekku la nga souffrir fexe ba génne souffrance boobu bàyyi ngelaw li jàll. Mhm. nga def nettoyer fomp naan ndox jubbanti jouer le jeu ba douleur bi nga nekkoon ak ñàkk situation baax bi nga nekkoon effacé wu nga jël soir mhm. mais nga gis ne kon pakala tante action yi mu tante song boobu mu daanee Forza. Mhm. song na ko trois ak quatre fois ci biir combat boobu. yëpp Forza di ko résister. moo tax ñu ne mbër moom action xam nga li ngay waxee ci béykat yi foo foo jeex. foo forage doom dana la fa sa loxo. Pakala insister ci loolu mu mën mooy attaque sur le deux jambes. attaque sur les deux jambes yooyu la mujjee daane Forza radar ñaar tànk yi daw ak moom la Forza doon bañ. quatre fois cinquième fois bu dafa nangu. Mhm. mu nekk victoire bu éclatante tamit dafa sànni may manoore may joloore ki nga xam ne mooy Pakala. Mhm. et puis Pakala aussi gars yi dañu def attention mbër muy gëj ak mhm. mbër moo xam ne mbëru la te amul mhm. chance am ci ay combat am retard que ku bëgg a bëri nga bañ a bëri ak moom mais mhm. Forza euh, comment dirais-je Fakala dafa daan euh, dafa daan le lutteur le plus difficile à à manœuvrer muy muy muy muy Elton Elton tous ces grands champions là mënuñu mu ñëw daan ko technicité ak bëre bu gaaw te Forza eh, eh, Pakala ay combat dañuy yàgg dañuy passionnant dañuy metti muy doog a bu wàññee ko tey accordé Forza revanche Forza tamit ci diggante bi cultivé dafa bari daal fi ay combat demoon fi équipe nationale ñëwaat def fi yoo xamante ne tey jii mérité na revenir pour jël ci revanche am. mais Père de gratuité là c'est trop gratuit ce que la gratuite lay def mais pas grave <laughs> non ah. bien bu kenn bu la kenn yàqal waxal. <laughs> mon employé. <laughs> mais eh Tapha lii rek chèque bu deux millions lii war na taxaw parce que consultation dafa bari. non bàyyil ma gën boo gënee charmer léegi mën na ma. mais dama ni dama ni yow Ibrahima lii du pay mi nga bëgg a pay-per-view. donc vraiment j'étais j'étais trop content bu ma déggee dañu jël ñaari grands champions yi. muy Balla Gaye ak Bombardier. dakale leen ndax situation bi nga xam ne moom la Balla Gaye nekk alhamdulilah loolu gaston dañu ci félicité et parce que ni ku nekk da nga man. man de boo ko laajee ci waxtaan bi Balla est-ce que mën nga revenir en un laps de temps après dëj bi après yaa nekk di muuru plein de choses. Hmm. Hmm. loolu moom. amul moo tax déggoo kenn ki Sénégal pour respectu te hmm. leer na ma ne Bombardier mi adversaire am da ciy def da accompagner loolu ndax adversaire am taw leen dëgg la dëgg la laa bi alamin loolu moom amul kenn ku koy ñaawlu bu doon ay damay tukki bu doon ay damay ngénte mais lii moom dafa rëy rëyaay boo xamante ne defoon ko sax nit nañ dinañ dute naan oh mais c'est pas possible ah mbëri du ñu nit mais lii bu mu amee man dëgg yàlla maa njëkk na hmm. alhamdulilah rabbi alamin hmm. bien vrai que ça hmm. prend du temps c'est normal mais combat bu boo ko jëlee éloigné ko mais wàññeeku xam ne combat de valeur nga am boo xamante ne équivalence combat boobu la malgré que ñii la ñu tuddee VIP mais ñaar mbër yi di bëree combat boobu ñu woowee spécial mbaa grand combat à part ñooñu ñaari mbër ñii bëri ci kaw ñoom Balla Gaye mënuñu leen ñoom ba mën jee mënuñu leen mm. mm. dañ ci def promotion ñaar dañoo wane ay jaloore mm. donc ñaar ñooñu combat équivalence boobu loolu mooy mooy defar nga làmb defar nga làmb mooy moon nga yëpp nga yóbbu fële parce que yëpp nga ko namee noo mais doomu jàmm yoo xamante ne ñoom tamit taxoon nañu pour bëre dem jàll ci leneen te mën na am sax ñooñu bëre ki ca daan ñëwaat waat ci garab yi nga xamante ne moom la Balla Gaye def ak ak Bombardier Mm-hmm. bu amee wane wane wane li mu war a wane def def ndam mën naa am benn palier mm-hmm. avant pour mën a mën a bëri jiwaat encore spécial ci diggante Balla Gaye mm-hmm. boobu nga xamante ne moo la bëri Bombardier lépp ay ay ay ay possibilité Gaston Production présente noonu sumeeku na ça veut presque presque parce que tout simplement on voit qu'il y a d'autres l'intérieur on espère on peut le souhaite que ce également soit euh, un combat où il n'y aura pas de mort soit euh, un combat où il y euh, Bombardier aussi qui Bombardier qui arrive Bombardier qui arrive voilà voilà Bombardier 15 victoires 7 défaites 7 défaites et Balla Gaye on 21 combats, Le plus grand événement de la saison. Un choc au sommet.